Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abone di am en temps réel tous les événements. BBC lu bees takk wàcc na ci géew bi muy borom Baxdaat Karo entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu karo bépp xeet ba ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko moo xam corossol 60 sur 60 corossol 60 sur 120 corossol 30 sur 30 corossol grès cérame corossol grès poli ak ay caro faïence yu rafet lool faïence cuisine faïence salle de bain ak façade bâtiment faïence patio amna nañu itam ay salle de bain yu luxe yu méngoo ak jamono yo xam ne boo sangu da nga dem sangu ji boo la sangu itam da nga dem sangu ji ndax seenu taar foo ko nat rek wessu nako amna fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokki BBC borom baxtaat karo seen gérant di Ahmadou Bamba Amar seen adresse ña nga nekk ci keur Massar yoonu sedima ci wetu Jolof ci kan bo bëggee jokkoo ak mom wooteel ci 77 748 13 37 77 748 13 37

BBC borom Baxdaat Karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meubles salon chambre à coucher ay porte blindées marque turquie defal sa commande nu mu gën gaawee di ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon nag mbokk yi kër gu taaru gu yanji gaa ngoog di BBC borom Baxdaat Karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah ngi sant borom mu tedd bi subhaanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi digle lu baax ak tereb safaan lu màgg màgg la ci diine bokk na ci li tax yàlla yónni yonente yi yabal leen ci doomu adama yi tax moo taxit ñun xeetu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu yeyoo doon ñu gën borom bi nee na nekk ngeen di xeet bi gën ci xeet yi yàlla génne ko ci nit ndax da ngeen di digle lu baax di tereb safaan kon lu ama am solo la ci mépp mbooloo moo xam ne ay jullit lañ mu am ci seen biir ñuy di ñuy digle lu baax di tereb safaan faratala la yàlla gàll ci loo su jàmm ñi ko war a taxawee buñ ko taxawee am ci tuyaaba waaye buñ ko sàgganee ci lu dul ngànt am ci mbugali suñu borom suñu borom wax na ci alxuraan ne na am ci yéen mbooloo moo xam ne dañuy woote jëm ci lu baax mooy dañuy digle lu baax waaye dañuy tere ab safaan wax ne ñooñee nag ñooy ñu texe kon mbooloo mu ne war na am ci seen biir ay diglekat lu baax terekat safaan doomu aadama yi yàlla da leen a binde bari ci ñoom ñoo xam ne seytaan leen man seen bakkan leen man ñuy def lu dul noona bu waru si leen seetaan bàyyi leen ñuy boy boo ëllëgee ñuy loru na sayyiduna abubakrin siddiq radiyallahu anhu nee na aaya ngi nii ci alxuraan ci benn xutbaam la ko wax ne nit ñi dañ koy firee noo xam ne du noona suñ borom waxee na yéen nit ñi taqoo leen ak seen bopp naa fexe leen ba lijjanti seen mbiri bopp su ko defee ku sànku yi du leen wàññi dara bu fekkee ni yéen tegu ngeen ci yoon ñenn ñi dañ ko doon firee rek ne fexeel ba tegu ci yoon ña ci des bu ci sa yoon nekk mu ne leen du loolu de aaya ji firiwut loolu daal wax ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne amul ñenn nit ñoo xam ne dañuy def aw ñawteef te am ca seen biir ñoo xam ne mën nañoo wax wala ñu def ba ñaawteef wa dañ te defuñ ko xanaa seetaan leen bàyyi leen ñuy def leen neex lu dul ne yàlla dana matale mbugal moo xam ne bu dikkee ñeroon def ak ñu defut ñëpp lay laal. beneen xadis yi utooy salaam wax ne waat naa ci yàlla ne da ngeen digle lu baax tere safaan walla boog yàlla dana xiir dana jël ñi yées ci yéen teg leen ci seen kaw ñu leen def leen neex di leen bugal di leen noggatu di yàq seen alal di yàq seen lépp bu ko defee ñi baax ci yéen di ñaan waaye yàlla du nangu ñaan gi ndax da ngeen a bàyyi farata ju ngeen wartoon bàyyi mooy di digle lu baax tey tereb safaan bàyyi digle lu baax ak tereb safaan mbokk yi dana waral rëbbum yàlla ni mu dale woon yahud yi daanatullahi alayhim suñu borom nee na banu israil ñi nga xam ne yàlla day na rëbb ci làmmiñu yonent yàlla daawud ak yonent yàlla isa ndax dañ doon mooy yàlla di jalgate te daawuñ terente ay safaan nit day na yi seen biir di def ab safaan ñu leen seetaan kenn du wax dara ba tax yàlla rëbbu leen kon rëbbum yàlla mën naa dal bu ñu waree digle lu baax def te defuñ ko wala ñu war a tere safaan defuñ ko kon lu am solo la ñu war a bàyyi xel ne jamono ju nekk béréb bu nekk war naa am ay nit ñuy taxaw ci li war a am di am waaye li wër te am bañ am li ci mat a xel rek mooy daa am ay sart am ay teggin yoo xam ne war nañ caa tënku ñu bëgg ñu bëggee mu dëppoog diine te liggéey seen man ko ca am bokk na ci sart yooyu saa bu ñuy tere ab safaan safaan bi na doon loo xam ne ñëpp xam nañ ne ab safaan la diine moo ne lii baaxut bu diine xasee wax na lii baaxut nag waxi keneen du jàppal baaxut lu baaxut loola la mooy munkar lu diine xas ni wax ne baaxut wala su ko defee rek munkar la loolu bokk na ci ñaareel bay ne doon loo xam ne ki koy def da koo nëbbutu nëbbutuwut da koy fesal daa ne ci bitti nëbbul kenn li muy def ndax ñaawteef ñaawteef la waaye njéeméeru ñaawteef it geneen ñaawteef la te mën naa war ñi xamul dara ak gone yi di ca roy te fekk waruñ caa roy loolu moo tax ñu bëgg loolu bu amee rek ñu war a jóg jóg ngir fànq loola waaye su doonee loo xam ne xëy na ak gudd ci doon lu munkar xëy na rek mën naa bañ a gën waaye du munkar kon nag du jar yenn taxawaay waaye bu dee loo xam ne it ki koy def moom xam na ne lii muy def safaan la waaye ma nga tëju ci ab ruqam di ko def boolewu ca kenn kooku nañ ko bàyyi yàlla mi nga xam ne moo ko bind te bu ko neexee mën na koo weer te bu ko weerul fii ci àdduna bu yemal xaamee ba ñëpp teew doomu aadama yi njëkkoon a bind ñu mujj yàlla wuñ ñi awraaw ci kanam ñëpp lay gën a metti kooku it bu jàppee ne ma ngay raw rawut waaye liñ santaane mooy ki nga xam ne day def ñaawteef di ko fésal sëriñ bi sëriñ mag bi radiyallahu anhu wax na ci téeréem ne bokk na ci sarti e, tere ab safaan na doon loo xam ne daa fés ki koy def ci bit la koy defee waaye nee na buñ jëddu nit ñi buñ leen di yërndu bu ñuy foxtandiku seen xet ba xam ñi ngi def ab safaan wala déet buñ gëstu it lañ denc ci seen bir kër wala ñu denc ko ci seen i jaayukaay walla ñu denc ko ci seen jiba wala sax ñu ngëpp ko ci seen loxo kii def ñawteef daal xam ne li ñawteef la mu laq ko mbindéef yàlla yi nañ ko bàyyi yàlla mi nga xam ne dara du laq fu moom bis dana ñëw mu tuub ko wala boog bu faatoo faatuwaale ko bu ëllëgee danañ ko yàlla toroxal ko bu ko bu ko suturaalul toroxal ko ci kanam jaam ñëpp te boobaa lay gën a metti kon ñu bàyyi xel baax a baax ne dañoo war a tere ab safaan waaye nañ ci bàyyi xel nag sart yi mu war a àndal ngir mu dëppoo diine mbokk yi nañu farlu lol ci yitte jooju kenn ku ne ci noonu na ci taxaw kenn ku ne nam ko manee ndax ndeysaan daa waxoon ne ko ci gis munkar na ko dindi ci wax ba mu dañ jëf ba mu dañ mbaa wax ba dañ mbaa nga fas ko ci soxal mu naqalee la nga bañ ko loolu ku ne ci war na koo def waaye tàmbalee ko ci sa njaboot tey bu sëriñ bi ne ñaawteef yi lislaam bi bañ kenn def ci dëkk bi kenn ku ne sa biir kër yaa war a jàppale sëriñ bi tàmbalee ko sa njaboot ndax mbooleem ñi def ñaawteef ci mbedd mi jàpp naa ne ci ay kër lañ bàyyi ko te kër ga am na kilifa kilifa kër gi nga xam ne am na sas ci ndigalul sëriñ boobu mu fexe ba waa këram moom buñ bokk ci ñiy def ay safar kenn ku kër nag jabootee la la war ci ñoom nga di ko def da nga xam ña cay def lu jëkk ak lu jëkkul nga fexe ba taxaw ci moom dañ bu kër yëpp defoon rek mbedd mi dana set ñiñ dénk liggéey yu mel noonu danañ mën noppalu waaye bàyyi xel baax baax ne charia moo ko santaane santuñu ko ñun ñëpp ndax sunu borom moo digle ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen fexe ba fegal seen bopp ak seenu njaboot sawara fegal leen seen bopp ak seenu njaboot sawara sa njaboot nag ni nga ko fegale sawara mooy teg ko ci yoon bu nekkee ci lu dul noonu nga fexe ba mu jóg ci bañ a faatuwaale di dund ci munkar su ko defee boo léegi yàlla mën ko yërëm mu tàbbi aljana fekk yow saw sas ci moom waat wàcc na la waaye sàggane sa njaboot seetaan ko muy defi munkar di ko nëbbu ba faatu yóbbaale ñaawtee foo ci kanam sunu borom lu ne mën na ko caa fekk te boobaa mën nga caa bañ a ndax sunu borom dalaa digaloon te dafoo ndigal yàlla na yàlla boole dimbali lu bees tàq wàcc na ci géew bi muy borom Baghdad Caro entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu caro bépp xeet bu ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko xam caro 60 sur 60 caro 60 sur 120 caro 30 sur 30 caro-sol grès cérame caro grès poli ak ay caro faïence yu rafet lool faïence cuisine faïence salle de bain ak bâtiment faïence patio amna nañu itam ay salle de bain yu luxe yu mengo ak jamono yo xam bo sangu da nga dem sangu ji boo la sangu itam da nga dem sangu ji ndax ko fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokki BBC barom baxtaat karu seen gérant di Ahmadou Bamba Amar Senadres adresse ña nga nekk ca Kër Massar yoonu Sédima ci wetu Jolof ci kan bo ak mom ci 77 748 13 37 77 748 13 37

BBC borom Bagdad Karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meuble salon chambre ak coucher ay porte blindée marque turquie defal sa commande nu mu gën a gaawee diirub ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon nag mbokk yi kër gu taaru gu yanji gaa ngoog di BBC borom Bagdad Karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah